ku ne xam na ne ci jànkati sëñ Tuubaa yi gën a mag yi gën a ràññeeku ci la bokk ñu am tawféex daje ak kenn ci njabootam sëñ Cheikh gay may moom it ah liggéey ci sëñ Tuubaa yi liggéey boo xam ne de su dootuñu ko lam-lamee ñu bëggoon koo tàllal suñu micro sëñ Cheikh nga defal ñu ay soññee ci xasida yi ak ndaw ñi nga xam ne ñoo ci soobu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaw noonu ñi nga xam ne noonu yàlla dafa tawféex yi nuy jàng ci xasida yi di ko durus ak di ko yëkkati waaw maa ngi koy dénk sa bopp di leen ko dénk ne waxtu wuñ ci nekkatee nanu fexe ba sellal ko te di ko jànge it ne ko suñ bi daan dégloo waaw ndax loolu lu ci am solo la ndax daa ji xew léegi ñu xew ko yëpp am na fi bu neexoon sëñ bi moom la koy dégloo waaye daw ko dégloo yim ko yim koy dégloo dëgg mooy daaji cosaan yii nga xam moom la mag ñi di daaj ñoom sëñ Mayib Géeg ñoom sëñ Fall Bouba ak sëñ Moussa Diagne sëñ Seexu Ndaw ñoom ñoo nga xam ne ñoon jàngal sëñ Tuubaa ci njaareem uh-huh. waaw nañ ko daan jànge uh-huh. du mën caa soppat dara uh-huh. waaw parce que ni di ko jànge noonu ndax wax nañ ne mas nañuy jàng ba soo ko eggale ñu sëñ Tuubaa ni leen seen liggéey bi ndax xam ngeen nu mu demee ñu ne ko duñ dee Mbàkke xamuñu ko xamuñu ci dara de Mbàkke ñu ne ko kon ndigal di rek leen ca ba ñu ne ko waaw de Mbàkke xamuñu ci dara ndigal di rek nu ci ba Mbàkke mu ne xam ngeen njanaaw ñu ne ko waaw de ne xam ngeen laafee ñu ne ko waaw mu ne xam ngeen dunqee ñu ne ko waaw mu ne bokkee nañu tura ñu ne ko déet day Mbàkke mu ne tàggoo nañoo ñu ne ko day Mbàkke mu ne ki def loolu li ngeen di wax de xasaayid yi ak yéen ñu koy nettali mhm. ak ñu koy déglu te ànd ci ak Pastef mhm. mu ngi mel ne njanaaw ak laafee ko benn yoon loolu nag képp koo xam ne kii eh, yàlla xéwal na nga di ko yëkkati mbaa nga di ko durus mhm. na nga xam ne eh, lépp loo xam ne may na la bu suñ tubaa doon jëmmi njanaaw nga doon laaf ci moom mbaa nga doon donk ci moom war ngaa fonk loolu te téye ko te jàppat ko baax a baax a baax waaw loolu rek mooy soññe bi noo ngi koy soññi suñu bopp leen ko soññe yéen ñëpp waaw waaw jërëjëf jërëjëf gannaaw loolu it jërëjëf dégg nañ soññe a baax gannaaw loolu sëñ Cheikh daa mel ne am na bis booy waajal waaw bis sëñ may géey bi moom dañ ci sant euh, cant gi nag mhm. mooy nin koy defee mooy sante ko bis ba nga xam ne ci la ko saamam jëlee yët ko Sëñ Tuubaa ca gànnaar muy bisub altine mu boole ko aw fas ak fanweer dërëm mi ngurdu waaw ne seet naa ba xam ne yaa mat a ñukkal yaa mat a ñàkk alal ci yow waaw te mënatuma ñukk bay ñaq uhuh. amatuma lu ma ñàkkit ngir mag laa uhuh. waaye kii day daanaka ci samay caat la bokk uhuh. moom ma gënal ci sama doom jox naa la ko faw bu nekk doon tàkk ci sama ko tax bu ko fay te du sa coobare waaw mu ne ko ahmad yow bayliku nga lool di mu ne ko mbàkke da ngaa mat a bayliku ci yow mbàkke ndax xaw ma jënn jamono waaye ji jamono ku ci dem àjjana yaa ko ci yóbbu ku ci dem sawara da nga di gaaw bii di ñëw moo topp ci sa bii di bi di ñëw moom la moom la doon bés bi ñooy ñaan yàlla nag ñëpp teew si fa waaw képp koo xam ne kii teew na fa ñoo ngi ñaan ci yàlla yàlla faj sa aajo waaw waaw waaw dafa lu koy sa njort